bu la ñu yàgg yi bëri naa leen di ñu doon gaaw nawet bi loolu. ok kon xaaral ma téléphone bi. waaw ma ma woon kon ñu doon doxal. waaw waaw daal ma doon am. ndax ma am na ak loolu am na. bu tooyee naa ma ma jël ma jël foofu. bu tooyee nag. ñoom ñu jël foofu bu bu toogee fii. bu toogee fii. ah boo boo tey fatoo daal li ma ñu bëgg yàlla nga ko am loolu la yéen a koy ñaan bu leen amalee Thank you. waaw man noonu la moo tax nag waaw. damay sëñ bi mot seen. moom waaw moom mooy faral di ànd si fan bi seen sax. awul waa ji. waaw yii sëñ bi sax. waaw sëñ ak yéen andi gars yi. waaw yii sëñ sax Mbacke. sëñ sax Mbacke. waaw kon si quoi. sëñ Mbacke Gueye ñu daan jàngal si. waaw awul waaw. Alaaji Jaga Njaay moom la ñu demee kat kaay. waaw moom ci doom la. waaw Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye. waaw su ko doom su ñu naan Mouhamed ma. waaw sëñ Sidi Mbacke. loolu wóorul. sëñ Sidi Mbacke. sëñ sëñ Cheikh Sarr. waaw waaw moom it moom euh, ci may buntam ci kër gi. sëñ Cheikh Xadi. waaw waaw. sëñ Maawa Fall. sëñ Maawa Fall waaw.

ah daa bëgg e a wax ba dégg mbay mi. waaw. teew. ok. yaa mun. ah daa dee bañ a teew teew. nu mu nuyu jëli sax bii. waaw. gis nañ xam sax. nu mu jëli jëli jëli sax bii. suñu fekk daal. waaye nag jëli ci ñun ci ñun yëpp nag. rawatina jëli seen seen xaaj ñu ne seen moom Moussa ñaan ko. si ñam bi Moussa. loolu loolu la xam na mu sal sa moom sal waaw waaye lu mu naan ko sëñ xan bi moom sama xarit ñaan ñaan sa sa bi moom sëñ Mouhamadou benn Fall waaw bu bu nit wax lay lii noo jël daal leen jël baax waaye léegi waaw di bëgg nag yéen mor yi yéen xay de si leen rek di bëgg nag ci ñëw kenn jëriñ si tubaab yi xam xam nga ñu baax ni sa sa tur sa tur leen neex yow. ñu bàyyi tur sa ñam sa leen neex. rawatina rawatina ji kër nag. ji kër si yàlla faa rawatina bàqal bii ngay dañu mën a xam nga Ibrahima seera seera seeraay mi. Ibrahima ji mu bi. xam nga Ibrahima nu ma sori leen. xam nga daa am ko waxee daa ñëw jox nu. fan yii bii nee ma dem jënd fan yii bii sàngam. ñu waaye Ibrahima jooy rek xam nga ñu musuloo gis ko saako saako indi saako beñe suñu am gi indi saako beñe doon nii mu wàcc ko nag ñi sàndarma di ko xool bëti keelu yor ndax gëmul beñe la ndekk juróom-ñeent nga ci biir nag xam benn saako wàcc ñu ko ndox ndekk juróom-benn juróom-ñeent nga ci biir nag ko yëgal sax ah waaye waaye la ko yëg mu sëdli ko ci biir ko ne am xam nga fekk moom bu bëggee suñu koy jàpp du ko jàpp moom dong. dem loolu bale ma yëg ni ñu ngi waaj a ñaan. ma ma yóbbu la fa benn rek. moom noonu la ko defee mooy am ba benn doom doon joxe daa ñëw ni yaa bi bi yaa yaa jiite. mu mu mu njëkk daa bëgg nu xool ko ba mu sonal suukaram de.

seer seeraay li seer wàll mooy dafa ñor rek waaye noo ngi ñaan mool yi si dund bi yàlla yàgg sama jàmm loolu noo ko ñaan loolu mool yi waaye ñaan ko noonu ci yaakaar ni suñu tubaab seer wàll noo ñaan loolu suñu borom mu defal mu defal ko maanaam day bëgg suñu baax yëpp Mbacke Mbacke nag. Ah. comme ça nga nekk nag ab diir. liggéey si mm-hmm. Tuubaa Cheikh Fall ñu ngi ko ñaan asoo ju teddoo. loolu la loolu la ñaan mu lu may. amiin jëm sa jëm sa mel Fall ji ci gën tuloon suñu Fall Mbacke bi sopp na la. Mm-hmm. waaye nag ah, mbir bi nag xam nga ku ne am am ku ne am amal na ibégee dara. loolu mm-hmm. Ibrahima xel lay mi. xam nga xam nga mbir yi dina fexe ba ku ne mos jëf Ibrahima gi xam nga du la mën a miin sa ab saa bu nekkoon. xam xam yaa taxal nañu bari xëy na ñu koy jàpp daal maa jóg jiw sañ bi ñu mag yi. waaw su ma yee su ma yee su ma jàpp. su ma ko jàpp moom dong. ku yàlla daal ci taxal ma. bu ma ko jàpp maa maa di taxal loolu loolu moom koy jàpp moom jàppale la. moom dégg na loolu Mbacke. ah ki fi nekk man sama am fi am si Modou Mbène mooy sama bi kii waaye moom xam nga ñi ñi ma nekkal maa ngi ñu bokk waaye duñ sama sang loolu loolu waral nag moo mën a am si ñoom lu ne. sa sa sa sëñ bi xam nga doon si sëñ bi la rakk sëñ sëñ bi soxna sëñ bi daawe daawe sëñ bi moo tax nag ma ma maanaam amul si sax jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke sa sant man mooy noonu la seeral ni sant na ci ñëw bii jërëjëf ñu koy ñëw santaale ko ay ban sa xol sa te ne ku dégg rek ku déglu seen wax yi moom sax seen wax ma ngi fii xaxa moom moom xol baa ngi fi jël nag loo ko neex waaye yéen waaw. leer gi mu ko leer bu tegee tànk bi. teg na tànk bi gudd kër yëpp. ma ne waxoon na sax moom hm. li mu li mu dolli cee wax daal loolu la ko wax nag. waaw lépp teg na tànk bi gudd kër bi yëpp yëpp yëpp moo doon daal. moom day la moo doon lu waa muy dama ko lim léegi laay jublu si kër kër gi. waaw. kër gi ak ñoom daal sali. waa daal daal. waa ji ma ko doon jël. li mu ne fukki def ngeen ko waaye. nga xam moom jéem naa ji bëggoon lu weesu moom. waaye ñu lànk jéem naa jéem bëgg bëggoon. mais moom ma ne waay kon nag kon nag sëñ bi nawet bi boolaale ko ci man. ah ah. ab si yàlla moom. ab si yàlla loolu. kon ñu doon dégg moom daj dañ la waaye daj nañ. moom moom ñu doon daxal. moom jar na xam dugg ndax ndax naan ci xam xam bu ñu woon bëggee mën naa tegee añu duñ doon naan nu fu ngay jaaree. bu doon bu jógee. loolu lay mooy doomu aar lay. naan suñu jugee naan ma. waaye guddi gi xanaa moom. yàlla na am ah ah. ci ñamur yàlla. ah daa ñëw jàmm daa daa jëloon ba. daa ñëw de. ah ba barab ba ba ba si Ndakaaru. mur bi nag lu ah indi kanam moom ñaari doog a def wóorul ah mooy tax wóor yi waaye fa wóoru nga di moom. waaw nee na mi ngi def def waaye nag mi ngi mi ci lool. man man loolu la ñu. waaw mi ngi lool ndax kàddu gi waxuma si yéene rek. waaw mos na yéene fi yow. boobu am lu xewal. waaw waaye da nga ñu ne. bu ma demee ñu ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall kii. bu fi dara xew ba mu yónnee fi ndax yéene fi àndaw. waaw waaw waaw loolu la ñu waxtaan ba ñu. loolu la wax si waaw waxee nañu ne waaw xool xam nga am na sa racine bi li ko tombee mooy sël si. ñu ngi ñëw rek ñu ñaar ñu ngi si jiw ñaar mooy ñu ngi leen a baal ñu ngi leen a baal seen seen bopp. seen mbar mbàkk. boo ñu ànd fi ñu daal. dem caare kenn caare yi. ba mu téye loo loo xam daal waaye dabal suñu wërëm yi ñu ngi baax ñëpp ñëpp seen jënd gi waaye seen xol bi ñu waaye ñu baax ñu baax ñi seen jëm rek di waaye seen xol bi waaye mu teg na ni ko nit ku baax na noo ko def noonu la def xam nga loolu racine loolu muy sal sin ñu nga bëri sata sin ñu sa ñu karan sat ñu dem ba ci sayta sin ñu karan di set ñu teg ci xaalong ko nag muy muy ñaar fekk gan ma gis ne borom yéen a ngi ko waxee di daa bind sopp gi sopp baaji waxee naan dama laa sopp ndeke du fa du sunu faat wax ko du sunu di ndax noo ko def noonu la ndeke xool tontu la ñaar ak benn am ñu soog ñu soog a tontu lee mm-hmm. seen ku mm-hmm. dama laa sopp du sunu waxuma faat man loolu la ndax soo ko waxee xam na ko soo ko waxal na ko ndax noo ko def noonu la def loolu nag loolu la tont yi ñu soree dëkk boo def def tont rek mbakeer mbakeer seeroon ñu ñu leen jël jël ji ñu baax bi ñu baax ñëpp di bi ñu jiw kaddu boobu daal day xam am na xam am na ko waxe taamu gi nekk ci biir barab bi armée al baxri bi baraab mag bu Mbàkke ci boo yaa yaa ñoom te sol lu woyof am ko xam ba nekk kii am seen saa mu xaw jaa dem soo xam mu mu ñoo baax yow àll jàmbur nga bëgg yaa ñàkk sa bakkan seen seen Mbàkke man man daal day bay seen seen su mel ne mu yaa ñoo moo ñoo kër gi ak yow nga bëgg a àggal sama xel loolu loolu dara ah. moom waaw moom moom meloom la seen képp doy na moom déedéet moom moom xam nga mbër ma xam ne kam faral moom moom bu daanoo sax ma koy daaxal mu daan boobu moom far moom far rek la moom xam nga daan nga yaa bu mbëgg bi dëgg la daan bëgg ci mu nangu daal. waaye ñaan mu def ñaan la. moom mooy mbagg su amul yàlla dara kenn du am ndax li yàlla jàll dafa yóbbu. xaw nañ ci yàlla kenn du gët li yàlla jàll muy jëlu kenn. su ko seet na sax benn bu ñëw bii. jërëjëf. Seydou Sall. Seydou Sall bii.